chers téléspectateurs de Leral TV ñu ngi leen di nuyu gannaaw bi ñu leen nuyoo euh, dal leen ak jàmm ci seen euh, télé leeral TV leeral point net ak euh, leeral rajo ñu ngi leen gërëm di leen sant bu baax ñëwaat ak yéen ci seen entretien exclusive cette fois-ci war a sëkk waxtaan kenn ci nga xamante ni jotoon nañ fi am ndombal tànk ba léegi ñu am ndombal tànk doon kàngam wala bokk kilifa ci biir réew mi muy l'ancien ministre du sport Matar Ba doon chef de cabinet du président de la République doon aussi maire de la de Fatick. Euh, moo tax Ba ñu ngi lay nuyu monsieur le ministre. maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu ñi nga àndal yëpp di nuyu waa Leeral ak ñi leen di seetaan di am mbégte nag seq ak yow waxtaan te jàpp ne dinañ ci wax lu amal njëriñ askan wi. jërëjëf waxtaan wi dañ koy doo rek euh, poste bi nga xamante ni occupé nga ko ñu gis jéego yi nga xamante ne jot nga ci jot nga ko ci def muy ministère des sports. ak résultats yi surtout ci kaan bi muy loo xamante ne ñu ngi koy retenir ba léegi ndax li nga xamante ne moom la offrir Sénégalais yi ci engouement ci li nga xamante ni attente la woon des années yàlla def ko euh, mu tombeek li nga xamante ni nga yoroon ndombal tànk bi di ko jeexee mais gannaaw loolu yi tamit ñu jëlee la fa gannaaw bu ñu leen fi jëlee monsieur le ministre dafa mel ni da nga nekkoon ci benn silence kenn déggatul la nga nekkoon ci dans l'ombre kenn gisatu la lan la woon waaw damay sant yàlla bu baax nag di julli ci yonent bi di sant euh, ñi ñuy seetaan yëpp comme ni ma ko waxee léegi bi may nuyoo euh, di am mbégte dégg genre question boobu parce que daanaka loolu mooy wane ne Sénégal noppi daf fiy jaaxal ñu bëri. donc règle bi mooy ku nekk di wax man nag ma préféré ànd ak dal ak noppi parce que li nga wax dafa am solo bi ngay poser question bi. post boobu ngay wax muy ministre des sports yàlla dogal na ma nekk ko juróom-ñetti at ak ñetti weer battre record yàgg fa parce que François boobu moo fi defoon juróom-ñaari at man ma ñëw def fa juróom-ñetti at ak ñetti weer ku yàlla defal loolu déjà war ngaa ànd ak mbégte war nga ko sant mais war ngaa sant ñi nga ko bokkaloon bu loolu wéyee da ne am na ay résultats. tudd nga fi coupe d' afrique bi c' la première fois Sénégal di jël coupe d' afrique de football d' ailleurs Bayra football tax na nit ñi li ñuy jàpp rek mooy coupe d' afrique bi parce que yeneen i coupe afrique dugg na ci réew mi yeneen i médailles dugg na ci réew mi lu am am solo bi ñu fi nekkee te gëjoon fi yenn yi sax mosta am euh, damay citer rek les jeux olympiques de la jeunesse yàlla dogal na man may premier africain bi gouvernement am jox plein droit yi mu signé pour l'attribution des Jeux olympiques de la jeunesse ma ànd ci ak président Macky Sall ma di ko ci sant bu baax nag donc bu ñu demee ba mu jàpp ne parce que avant 2014 je n'étais pas ministre des sports moom moo jàpp ne liggéey bi ko sénégalais yi dénk ci wàllu tàggat yaram war naa woo ko tudd Matar Ba mu ñëw gunge ko teel ko li nga xam ne sénégalais yëpp a ko dénk damay rappeler ne sénégalais yi benn nit lañ fal muy Macky donc képp ku mu jox ndombo tànk rek da ci waar wi ko sénégalais yi jox euh, bi mu ma ko joxee 2014 aussi yàlla dogal ma nekk fii diir bi ma fi nekk euh, mu toog ba 2022 mu xalaat ne feneen laa ko war a taxawu mu woo ma ci ba mu ma ci wooyee it pour répondre nag effectivement à question ba mu ma ci wooyee li ma war mooy concentré wu ci li ma dénk lu bees parce que nit doo jóge ci ministère surtout man ni ma yàggee ci ministère bi ak yàlla ci ndogalam ak liggéey bi nga xamante ni sam ñi ma àndal ak monde sportif bi président Macky Sall jàppale ñu gouvernement bi jàpp ci ba ñu am ndam yi ñu am ba nga gis bi may def pastation de service ni coow li bare eh, su ma bëggee jàppale président Macky Sall bëgg a jàppale aussi kama fa wutu waratuma nekk di génn di wax ci wàllu tàggat yaram donc c'est une posture républicaine que j'ai moo tax ma observé ce silence bañ a dem ci infrastructure sportive yi bu manifestation amee parce que je ne pas gêner ñi nga xamante ne ñoom la yàlla dogal ñu toog ci chaise bi ma toog. si boo xamante ni dina. si si maa ngi wax ak ñoom ci téléphone. par exemple maa ngi gërëm bu baax laat Diop d'ailleurs maa ngi koy féliciter et puis di rafetlu taxawaayam parce que sama xarit la avant muy nekk ministre des sports ba mu nekkee ministre des ba léegi aussi ñu ngi déggante. lu mu xalaat ne mën naa ko ci wax wala ma jox ko ci conseil dina ma ko laaj loolu du lu nit di gis du it lu ñuy wax ci leeral wala lu ñuy wax ci ci ci télé yi euh, moo tax le fait d'être en retrait bañ a wax ci li nga xamante ne mooy tàggat yaram c'est mettre à l'aise effectivement ki nga xamante ne moom a wutu te defe naa ne loolu mooy posture bi baax imaginez-vous bu ma génnoon ci ministère boobu semaine bu ne leeral ñëw mu wax ci wàllu tàggat yaram c'est et je ne dois pas le faire parce que man ndamu président Macky rek lay wut suñ ma laajee lu ma mën a jàpp dama ciy jàpp suñ ma laajee fu ma mën a teg sama loxo pour mu baax dana ko def mais suñ ma laajul dinaa am maanute pour encourager ki ñaanal ko yàlla may ko ndam parce que ndamu ministre yëpp mooy ndamu président Macky Sall. naam mun ngaa noppi bañ cee tudd bañ cee wax. mais aussi ñu gis la sa présence mën na gën a motiver joueurs yi kii suñu ministre la woon wala ni nga doon jëflante ak ñoom. mais ça peut aussi perturber ça peut aussi perturber yow xam nga ma miinante nañu gise nañu waaye balaa ngay def émission bi da nga maa laaj ba ma ne la ñëwal donc euh, bu amee ministre des sports bu fi nekk euh, te woowu ma ci regroupement woowu ma ci pour mu wax ak joueur woowu ma pour mu wax ci li muy def su ma ci waxee mun naa gênant même bu fekkee ni yéene bi yéene bu rafet la mun naa gêner ki nga xamante moo fi ne. parce que il a besoin de prendre ses marques. lan la seen diggante bi moo diggante bi na non non du diggante bu rataxul tey da ngay xool damay jël euh, exemple ci woykat yi pour ñi may dégg mun a gaaw a comprendre wala ñi bëre tey jii bu euh, euh, benn chanteur bu bu bu bees buy soog a ñëw fenn. di organiser Youssou Ndour juux fa mun na perturber effectivement genre genre genre nit kooku parce que da ngay xam ne suñ la dénkee kuréel gu bees lu toll ni ministère dafay laaj ñi ngay liggéeyal miin la jox la dayo bi nga war a am mais bu fekkee ki fi nekkoon mooy ñëw toujours di taxaw nit ñi mën nañoo am tendance pas xeeb la waaye miin nit moo mel noonu ñi daan wax ak yow boo teewee dañuy el di wax ak yow directement te fekk na yow yoratoo li nga xamante ne mooy lenge yi bay régler problème yi lay wax dañ ko war a bàyyi ak ki nga xamante ne moo fi ne parce que man ku ma ko defoon du ma neex bi ma remplacé Mbagnick Ndiaye su Mbagnick Ndiaye doon def fu match am wala fu regroupement am te invité wu ko mu ñëw toog nit mun na ko gisee noo ko war gisee moom tamit posture bi ma am la amoon il est parti il est allé faire pour ne pas gêner celui qui est là. C'est ce que j'ai fait avec le ministre Diatara. C'est ce que j'ai fait aussi avec tout euh, tous ceux qui en tout cas, tous ceux qui m'ont succédé. Et qui finit aussi, eh, Batei Gizagomo, ñu ànd benn yoon la ànd te kooku maa ngi ko ci sant eh, final coupe du Sénégal basket bi mu yëgee ne maa ngi ñëw daf ma xaar ba ma ñëw ñu ànd dem ci ci manifestation bi loolu je suis à l'aise parce que ki fi nekk moom ma invité ki fi ne moo ma woo pour ma ñëw ànd ak moom ci manifestation sportive mais mënu ñëw noonu rek di dugg parce que nit aussi defar moo ñu war wax naa la léegi ne la ministre yëpp boo boolee li ñu réussir yëpp loolooy bilan président Macky Sall li ñu réussirul moom la ñu nit ñi ŋàññee mais lu baax lu ñu def ki nga xamante moo leen fa teg moo koy capitaliser te man nag ku ma xam-xam ne lu jàmmal président Macky Sall rek lay wër nekkuma ci nekkuma ci leneen. la fa tegoon. dindiwaat la fa naam jox na la yeneen fonction mais woykat ba yaa ko tudd léegi Youssou Ndour nee na da nga ma liggéeyloo ba xëy ne ma dàq naa la génne bu ñu la génnee ci ministère des. man résultat yi nga xamante ne jot jot na koo def monsieur le ministre <laughs> lan la la def. je dois est yaa ngi doon la fa. je préciser ah, que. ñu ñu war a dem ci coupe du monde ñu jëlee la fa noonu. on ne change préciser que woy boobu. Youssou Ndour woy na ko mais cas bi ma nekk woy boobu méngoowul ak kaa euh, bi ma nekk parce que man on m'a appelé à d'autres fonction je suis ministre plein je ne suis pas ministre tiré je suis ministre virgule chef de cabinet du président de la République c'est important parce que cela veut la différence bien sûr bien sûr waaw mais loolu ça ne dépend pas de moi ça dépend de celui qui est investi de cette mission c'est le oh. président Macky Sall qui nomme ce n'est pas moi le fait d'être performant yàlla damay la ay ndam taxul nga moom poste bi ñu la jox damay wax ne man 2014 laa ñëw ci poste bi am na ñu fi nekkoon man ba may jël service laa jàpp ne jour bi may jël service laa dugal sama bopp ne dama fi jóge d'ailleurs temps bi ma fi def sax xalaatu moon ne dinaa fi def temps bu noonu parce que bi may ñëw boobu mbër yi amuñu fi ñu bëree stade amul Sénégal a ngi bëgg fubal naan Maroc laa jëm dara amu fi. yàlla dogal ba loolu ba ma fi nekkee ba ba ma fi jóge Sénégal mu ngi fubal ci biir Sénégal yàlla di ñu defal aussi ay ndam ñu jóge ci élimination premier tour centre Afrique bi ñu demee foofu euh, Afrique si je pense que c'est ça bi ñu jógee foofu ñu dem euh, Cameroun quart de finale ñu taxaw jóge fa dem Égypte dem finale dem Cameroun jël coupe bi loolu ci football kese la mais yeneen. Euh, discipline sportive yi aussi on a vu effectivement des des pas qualitatifs qui ont été faits et puis li ci gën a am solo te sénégalais yi teye ko di ko wax ba tey fekkoon nañu famille boo xamante ne xuloo ak xeex bi bari woon na entre état fédération yi ku nekk di coow yàlla def ci suñu xel yàlla may ñu it nit ñi dégg ñu ba ñëpp mujj nekk benn joxante loxo moo tax ndam yi yomb liggéey fondation bu dëgëree rek lu la neex teg ci kaab te defe naa ne def liggéey nañ fi liggéey bu bu am am solo euh, bi mu jàppee ne ne ñu ngi dem coupe du monde te jàpp na ne keneen moo war a conduire les destinées du football là et du sport sénégalais je l'ai accepté avec beaucoup de bonheur man lu ma wax rek loolu laa gëm et si vous avez écouté mon discours lors de la passation de service di ngeen xam ne kii li mu wax ci loolu la nekk parce que un ministre ne peut rien fair sans l'appui du chef de l'État un ministre ne peut rien fair sans l'appui du gouvernement par exemple le ministère des sports ban ministère des boo amee xel mi fi nekk yëpp toog di xalaat ne équipe bi dafa war a yore ay dugg ci avion ñu nekk business class toog fii di xalaat ne lii lañ war a lekk lii laa leen war a fay te amoo loo leen ko defee mook zéro yem donc li ñu doon def yëpp c'est parce que président Macky Sall dañuy xalaat jox ko mu jàppale ñu wax ministre des finances mu exécuter dans les temps pour que ñu régler définitivement ces petits problèmes yi nga xam ne moo doon bloqué les équipes nationales yi représentent le Sénégal loolu nag dañ ko koy sante moo tax bi mu fi jëlee dañu xam ne ci rôle am la ne man si j'étais président de la République aussi mare naa fu ma la moon di teg ak lu la Sénégalais yi bëgg te ma jàpp ne bu waxtu jot na pour ma yóbbu la feneen dama la yóbbu feneen parce que c'est sa responsabilité. mun coupe d' Afrique mais ci beneen casquette lay nekk foofu danaa supporter équipe bi danaa jàppale ñi xalaat ne sama bu ma leen joxee conseil dana baax ci ñoom muy gouvernement bi muy muy joueurs yi muy fédération mais dama fay dem parce que la COP 9 que j'ai l'honneur de diriger mooy la conférence euh, des états parties Euh, la convention des états partis la conférence internationale de lutte contre le dopage bi yàggul ñu ñu ñu ñu fal ma fa c'est pays dañ fa am genre waxtaan wu ñu fa war a def te yàlla def mar ko fekkee defe naa ne sax njiiti réew mi bokk na ci ñi fa war a dem nekk ay champion pour ñu wax ak ndaw ñi wax ak sportif yi loolu dana ma fa yóbbu waaye su ma fa waroon dem pour seetaan it danaa fa dem pour seetaan suñu su ñu ma invité it bu ma fa waree dem danaa fa dem. loolu moom moo j'ai président lan lañ mën a xaar ci li nga xamante ni moom mooy euh, ci programme yi les d' abord c' une opportunité c' est lu rëy la pour réew mi parce que benn sénégalais mosu ko jiite. te xam nga 192 pays yoo xam dañu daje. les ambassadeurs accrédités à l'UNESCO teew les ministres des sports teew. ñooñu ñëpp bu ñu dajee di xalaat ci nan la ñuy def ba sport bi ñu assainir ko ba am un sport propre ba du am sinébar du am drogue du am tricherie defe naa loolu c'est une très grande mission euh, su ko Sénégal jiitee nag defe naa ni mbégte Sénégal la sur le plan diplomatique d'abord c'est une forte percée diplomatique te loolu dañ koy gërëm président Macky Sall bi nga xamante moo présenté suñu candidature Parce que ne se lève pas un jour pour aller là-bas. Il faut que le gouvernement du Sénégal accepte de porter la candidature. bi ñu ko porter aussi Afrique jël ko porté ko yeneen continent yi porté ko moo tax nga gis tout le bureau dañu fal par acclamation parce que c' était Matar Ba le président qui a été choisi par par ses pairs loolu dama ne dama ne liggéey bu am am solo la leneen li nag ci biir taxawaay bi lay doon defe naa ne on a un fonds pour lutter contre le dopage. Il aussi d'autres instruments. Quand on président aussi, il faut faire bénéficier de par sa posture liggéey bi ngay def à travers le monde defe naa ne dina nekk njëriñu njëriñu Sénégal. Ça nous permet quand même de commenter un tout petit peu l'actualité sénégalaise euh, li jëm ci émigration bu ñu waxee football jeune moo koy def ñu bëri ci ñi nga xamante ne ay ndawu Sénégal lañu tey génn nañu réew mi jël gaal gi dem Europe. ñu bëri ñàkk seen bakkan ci ci ndox mi tey monsieur le ministre ban commentaire ngay def wala ban diagnostic nga def euh, ci situation boobu la premier commentaire bi may def déjà mooy jaale Sénégal yëpp di ci jiital njiiti réew mi le président Macky Sall parce que moom moo jiite réew mi di jaale mbokk yi nga xamante ne yëpp perdre nañ seen i doom wala seen i mbokk ci géej gi muy une véritable catastrophe parce que loolu kenn bëggu ko gis li liy xew nii Euh, ba tax na kenn mënu ko càmbare ci benn côté ci wàll yëpp lañ ko war a càmbare ci éducation bi ci jamono ji fu mu toll ban kàddu lañ war di wax gone yi naka lañ war a yare gone yi bañ gëm seen bopp gëm seen réew ba moytu lii nga xamante ne moom mooy am xam nga bu njëkk dañ ñu doon yóbbu par force temps wu colonisation traite négrière africains yi fii lañ toogoon ñu leen jël par force ñuy bañ ñu leen di rey pour ñu bëgg ñoo dem léegi nag ñële ñoo toog bëgguñu ñu ñëw ñun ñu dugg ci kii mu jaral ñu ñu dee ci géej gi c'est la première question bu ñu war a suñu bopp te ñu ne àdduna baa ngi dox. li ko waral c'est une question de de lecture de liy xew parce que bu njëkk képp ku nekkoon ci kër dinañ la jox gëdd bi nga war a jox te bët da doon xam. lu bopp attan ba kenn du teg nit lu tax mu toog wéet naan lii dee moo ma ko gënal loolu du doon am parce que boo gisee ñun ñu doon dund ñu naan arbre à palabre xale yi di waxtaan di football di bëre di ànd ak seen bu ñu béyee ba weer wi ba nawet bi génn feet fu ne ñii di bëre ñii di ceetal ñii di def la parce que teguñu woon nit ñi lu ñu attanul aujourd'hui on est dans une société de consommation ba nga xamante ne nit ñi dañ jàpp ne boo amul yére bu bees torox nga boo amul liggéeyu bureau torox nga boo amul xaalis sa compte torox nga loolu nag ñu dugal ci bopp nit ñi moo tax ku nekk ne day dem day wuti te defe naa ne bu fekkee ne perdre ñu valeur yi suñu maam yi nekk defoon amul lu gën a rëy uuf sa wayjur uuf sa wayjur amul lu ko gënoon rëy mais on préfère les laisser ici parce que jàpp nañ ne bu ñu nekkee seen wet ñu amuñu jafe-jafe mënuñu ko régler toog seen wet amul njëriñ noonu mooy question bi nit ñi pose non ce pas toujours vrai xam nga lu tax xam nga lu tax ce pas toujours vrai ñun am na luñ ci dund soo gisee jour bi ma président Macky Sall fale ministre des sports ma dem Fatick dem ci samay mbokk sama rongoñ tuuru c'était pas parce que on m'a je pense à mes parents yi nga xam ne kenn nekkatu fi te ma xam liñ doon daj man ma xam li ma doon daj mare naa man xam naa tabaski jot samay moroom sol yére solu ma yére parce que aw ko xam naa li tumuranke xam naa li xiif xam naa liy mar xam naa lii say waajur am soxla nga bëgg koo faj te def loo ko taxumaa bay jàng taxumaa xaru taxumaa génn dëkk bi d'ailleurs Fatick géem a nekk maire j'aime le rappeler parce que dafa baax ci ndaw ñi ba ma fay jànge man tumuranke naa fa ba bu ma wàccoon am permanence damay dem wër fi ñuy jaayee gerte pour gerte yi échappé moom mën cee jiixaat am lu ma lekk ndax xiif te te yàlla dogal na may meeru dëkk ba de yow yooyu gerte juróom la mais léegi. non non c' est c' est c' est pas c' pas non non non yaa ngi juum c' est pas le coup. yaa ngi juum c' pas le coup mais loolu important xam nga tey jamono ji ñu toll li ma la bëgg a wax li nga xamante ne mooy wàllu alal bi dafa am solo ci fi may wax ak yow c' est pas ça du angle boobu angle bi ma lay wax mooy jafe-jafe àdduna bu mu tax nga bàyyi jafe-jafe yow mii yaa ngi yor micro. yaa ngi say propre problème yoo xamante ne peut-être nit a ngi lay ñëwee boo ko ko yenee mu daanu te pourtant yaa ngi koy jaayante di ko ñafe gis nga lu nit def rek nit a ngi toog ne du ko def moo tax xele yi il faut ñu xamal leen ne l'Eldorado n'existe plus ay dem France damay am xaalis sa n'existe plus parce que France am nañu seen i jafe-jafe mënuñu ko rek. nga lu ñu gënal Sénégal am na ñu ko fi am yàlla binde noonu àdduna ñëpp mënuñu am li faut toujours am ñoo xamante ne dañuy wut te duñu am am na ñoo xam ne dañu am lu ne gàññ mais li tax nit ñi di génn lenn li ci ñoom la lenn li du ci ñoom parce que bu fekkee ne man bu ma demee Europe bu ma ñëwee fii li may won nit ñi ne Europe ku fa dem da ngay tibb xaalis xale yi dañu am envie tibb dem pour pour dénkumpal fa ne mais bu fekkee ne képp ku dem. jafe-jafe yaa ngi fay daj boo ñëwee boo toogee xale yi da nga leen naan lii jaayante la bu njëkk nag boo boo koy commencé dinañ la ne danga am ba pare bugg ñoo xañ mais boo insister ba ñu xam xam la fa ne suñu tele yi suñu site yi war nañoo mën a def ay documentaire sur les difficultés yi nga xamante ne les africains pas les sénégalais les africains ñu ngi koy dund Europe di ko dund États-Unis di ko dund feneen dañ ko war di teg pour xale yi xam lan la ñu parce que ñu ci gën a bëri kumpa la ñu demee parce que man ci dama posé wu question parce que bu fekkee ne am na ñoo xam ne dañuy yor seen doom ak seen jabar ak yëpp dugg ci gaal ne dañuy dem te xamuñ ne dina yegg finalement loolu kenn mënatu ko expliquer. Et la responsabilité de l'État. La responsabilité est partagée. Ce n'est pas que l'État. L'État a essayé. Depuis que l'État et l'État, il toujours des programmes pour que nit ñi am liggéey. Il toujours des projets, il toujours des conditions même si c'est pas suffisant ay conditions yoo xam ne dina permettre xele yi toog fii di job mais am na ñoo xamante ne ni ñu gis mooy job bi fii amul dara loolu la ñu jàpp mais Sénégal dëkk la te même bu métti woon ba métti li ma gëm mooy sénégalais yi rek ñoo war a defar Sénégal si tous les jeunes partent tout le monde par mais kan mooy defar Sénégal. c'est vrai que la richesse mais c'est c'est euh, voilà c'est les bras parce que boo gisee l'Afrique nekk en retard parce que ceux qui devraient construire l'Afrique ñoom lañ jëloon ci traite négrière bi ñu dem ci les grandes plaines aux États-Unis di fa béy lañ fay bay ñu jël ko yóbbu ko Europe industrialisation ñoo jaayaat ñu ko moo tax ñu tardé ba tey c'est ce triangle la moom moo ñu rey donc loolu moom la ñuy dundaat nii parce que la configuration de la population sénégalaise mooy jeunes yi ñoo ëpp jeunes ni ñu ëpp noonu dëgg-dëgg bu ñu fekkee ne moitié bi yëpp dañuy dem sànku ji wala ñiy yegg nekk feneen di di jëriñ yeneen i réew day métti moo tax loolu bu kenn jàpp ne état bi rek la bu kenn jàpp ne parent yi rek la bu kenn jàpp ne keneen ak keneen la ku nekk na ci sol mbaxana mi nga xamante moom la yor su ko defee ku nekk def ci liggéey bi nga war a liggéey. avec ces lots de mois monsieur euh, que ñu ngi doon wax gisuñu benn yoon ñu décréter benn deuil national pour mémoire nga xamante ni tey génn mais vous pensez que le deuil tout le monde en parle mais un phénomène qui est xam nga bu fekkee ne accident moo am nii wala benn autorité génn na ñu def deuil national on espère que ça s'arrête mais bu fekkee ne c'est un processus boo xam nit ñi ñu ngi dem chaque jour gaal am na chaque jour gaal am na cela veut dire nañ nekk ñun ñëpp di nekk ci deuil national tous les jours parce que on est d'égale dignité su fekkee ne am na benn gaal bu def vingt cinq wala bu def cinq suux na ñu def deuil national suba bu amee bu def ñaar suux na dañu war a def deuil national le problème ne pas le deuil national le problème mooy c'est se partager c'est se partager toutes les responsabilités mooy ku nekk xam ne lii nga xamante ne moom moo xew dama ci war a béy sama waar te bañ cee solal kenn kasketu yow la parce que parent yi am nañ ci responsabilité état am na ci responsabilité population bi ñun ñëpp société bee ci am responsabilité parce que moom violence mooy am c'est un c'est un phénomène ce qui vient de se passer kenn mënu ko expliquer parce que état baa ngi jéem li man parents yi kenn bëggul sa gis sa doom mu suux mais terewul mu ngi am donc bu ñu ko bu ñu ko régler noonu ni ñu ko war a régler daal mooy ku ci ne na ci xalaat bu kenn xeeb xalaatam foo nekk ak ndaw ñoo mën a toogal béy ci sa waar pour ñu xam ne l'avenir de ce pays c'est les jeunes. même le président d'ailleurs. voilà l'avenir de ce pays euh, jeunes yi la monsieur le ministre amoon na ay xew yu fi jot a xam sa kër bokk na ci ñi nga xamante ne dañ ko attaqué woon euh, nan nga dundee moment yooyu nga xamante ni c'est des moments de tension nga dëkk foo xamante ni euh, tey dañoo xëy di ko di ko attaqué. ça fait mal j'avais réagi hein, avec euh, beaucoup de sérénité parce que loolu ñu war. Euh, ay taalibe lañu ay sénégalais lañu lu dal suñu kaw dañuy xam ne ndogalu yàlla la waaye lu ñuy ñaawlu la parce que Sénégal politique xëccoo jarul violence jarul ñuy taal kër surtout man bi nga xam bi ñu may attaqué mes enfants étaient à l'intérieur de la maison cela veut dire que man bu ma newuloon ci kër gi ils allaient même faire plus mal que ça nit mënoon na ci faatu et cetera et cetera Euh, jàpp naa it ne sama fidélité ak loyauté bi ma am ci président Macky Sall moo tax ñu ñu dal sama kaw bu ma doon tàppale kenn du dal sama kaw parce que je ne suis pas dans les débats yi gars yi nekk di di saagante di waxante yenn yi man li ma gëm laa gëm te damay liggéey pour que Macky Sall am ndam depuis que je suis son remplaçant ou son successeur au niveau de Fatick on n'a jamais perdu d'élection et je pense que j'y travaille tous les jours donc toog ñu attaqué la lu ma bett la moo tax sax d'ailleurs mu yegg fi mu yegg mais j'espère que bi mu dalee ci man la arrêté et j'espère que dina arrêté définitivement parce que Sénégal waruñ toll ci yu mel noonu parce que koo fi lakk këram mun naa dem lakk sa kër. waruñ fa waruñ fa yegg moo tax ma ne la j'espère que comme ci man la dal te bi mu dalee ci man ba tey arrêté na j'espère que dootu am parce que xëccoo mën na am ku nekk gëm nga li nga gëm tu te Mais on ne pas arriver à ce niveau de violence qui ne s'explique pas. Et je pense que réaction yi ci réseau yi réaction yi ci ñëpp ñi ko fi sujet bari nañu te defe naa ne euh, foofu lay yem parce que tey ku fi xëccoo pour jiite réew mi soo nekkee président yit président Sénégal yëpp ngay doon. ñenn ci ñi doon xëccoo. ñuy xëccu réew ba léegi ndax ba léegi mu ngi euh, dëgg la mu ngi ci loxoy yoon waaye am na mbébétu diriger réew mi muy Ousmane Sonko mu ngi ci loxo yoon euh, tey euh, situation bu muy dund ñu bëri jàpp nii jaay doole la gannaaw yi tamit décision bi nga xamante ni joxe nañ ko Ziguinchor ñu ñëw ko suprême ak Tamba Mbalu bi dañ ko suprême jox ki nga xamante ni mooy. tribunal grande situation boobu euh, mais situation boobu day wone la justice est indépendante au Sénégal cela veut dire que sénégalais yëpp dañu am ay droits et des devoirs tey ku ñu def lu la neexul da ngay dem parce que ñoom ñooy def ay recours ñii di def ay appel tout ça cela montre que c'est ça la justice e nga xamante ni mooy mais oui j'approuve parce que képp ku wax ti convoque les textes xam nga Sénégal looloo fi ne. da ngay nangu liñ la teg mu jàll nanguwoo ko am na prox ndoll buñ la may pour nga ne nanguwuma il faut voir saa sous sa tàng la parce que tey boo diagnostiquer tout ce qui s'est passé moi je ne suis pas de ceux qui peuvent dire que Sonko li mu doon def dëgg la man jàpp naa ne ni mu ko ni mu doon taxawee ak li mu doon wax ci réew moo xamante ne dañu bëgg mu dox du façon wax yooyu moo mooy defar mooy andi dal ci réew. ndax moo non du question moo ko njëkk a wax bokkuma ci du man moo gën bokkuma ci gis nga ñun on a intérêt et vous journaliste ñu dellu siwaat ci li nga xamante mooy politique politique ay débat la ay idée la du saagante du war xottiwantu war ma ku ko def nga bokk Benno Bokk Yaakaar ànduma ci nga bokk opposition ànduma ci d'ailleurs moo tax ma posture du ngeen dégg ma génnee loo xamante ne lu nit mën a ñaawlu la ci kàddu yu rafetul parce que li ma jàpp mooy yàlla sax bu lay jox il faut mu wut koo xam ne day du d'accord ci li ci li nga xam moom ngay wut ci la lay joxe donc war ngaa respecter ñi ànd ak yow mais ñi àndul ak yow nga jox leen cër bu fekkee ne nag yow da nekk ci réew bu nga nekk président de la république li nga war a njëkk a def mooy respecter président bi fi ne parce que boo toogee place am da ngay bëgg ku la respecté. président nee na dina xeex li nga xamante ni moom mooy décision justice ba ñu appliqué ko ci ci réew mi euh, tey Sénat jëlal na dogal pour ñu delloo Ousmane ko fiche de parenage am mais gannaaw loolu dañuy gis ni ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci boppu institution boobu ne dañ leen wàcce remplacer leen. xam nga nag bu Sénat mënoon a joxe dogal bu ñuy appliqué kon doo wax Cour suprême tey. la veut dire que moom lam xalaat la wax mais am na ñu ñeneen ñu nekk ci kawam remplacé nag moom lañ commencé élection euh, suñu émission bi man dama def huit ans laa nekkoon fenn ba ma bëggee remplacé daf ma remplacé ñii fi nekkit texte yee ko may mu remplacé leen seen mandat jeex ñoom opposition ñu ko doon wax ne remplacé leen dem na ba jàpp ne tey la mu remplacer leen et la vie continue. décision bu ñu jël moo def euh, ci li nga xamante ni moom la bëgg moo tax mu def ko. non est est du décision bi waa opposition dañ jàpp ne favorable ci ñoom moo tax ñu koy ŋàññ je pense que c'est ça c'est comme ça qu'il faut poser la question le président il assume la mission qui lui a été confiée par le Sénégalais c'est tout. ñu ngi jëm ci élection présidentielle bu 2024. le président de la république tànn Amadou Ba pour mu doon seen candidat d' abord. di ko sant bu baax di sant bu baax président parce que nag fekkee naa bi ko nit ñi bi ko secretariat bi di wax ne ko koo tànn ñu ànd ci fekk naa ko donc président tànn na Amadou Ba te c' était le choix qu'il fallait faire dañ ciy gunge président gunge Amadou parce que moi personnellement Amadou je le connais Ah toog nañ autour de la table du conseil des ministres ay ati at d'ailleurs ci biir conseil des fois dama ko doon rappeler président de la république ce n'est pas trahir les secrets du conseil des ministres mais dama daan jël kaddu ne président maa ngi sant le ministre des finance parce que bu ñu amee résultat yi fexe ba yenn détails yi amatuñ ko ci ci football beeg suñu délégation yi c'est parce que les finances dañu réagir à temps donc ku résultats yi ma am ci ministère des sports ministre des finances yi fi jaar yëpp dañ ci contribuer parce que dañu ñu accompagner donc loolu tax na ma xam ko xam naa ne ku dal la ku ku nangoo liggéey la ku gëm président Macky Sall la ku bëgg réew mi la moo tax dinañu ko jàppale ci suñu kéemtalaay kattan pour que mu am ndam parce que boo amee ndam président Macky Sall am ndam. ñun tamit ñu am ndam. président choisir na ko mais am ñoo xamante ne ànduñu ci. mais loolooy àdduna seen yoonu bopp mais président ba am bi ko bi ko Ablaye Wade bëggee àndee affaire daa samp ndëndam am na ñu àndoon ak moom am na ñu ànduloon ak moom tey am na ñoo xamante ñu ngi ci wetti président am na temps en 2008 dañ doon naan président bi day foofu. Macky Sall mënut a nekk lu mu mun a gagné élection yi se poser la question tey mu nekk président ñu ngi ci wetam di ko jàppale donc tànneef boo gis. dina am ku ne d'accord ma mais li am solo mooy ñi ëpp la quasi totalité ñi mënuñ ko sax comme bari ñi ëpp ñu ànd nañu di dogal boobu ndax yaakaar ni ad ah, ki nga xamante ne moom mooy Amadou Ba tey li ñuy xaar ci moom dina ko dina ko mën a matal. mais li ñuy xaar ci moom dana ko matal parce que c'est un homme d'État il connaît. il sera il nga xamante ni nekk ci biir. non euh, il sera il sera c'est la politique aujourd'hui tout le monde veut se se faire une place autour de Amadou Ba y des chocs d'ambition am na ñoo xam ne dañuy bëgg mu wax ak ñoom te wax jotagul ñu mer tout ça day am parce que tànneef moo mel noonu et puis la politique mais jàpp naa ne critères yi ko président tànne. din dina yegg fi nga xamante ne effectivement dina dina dina fees chaise bi ñu ko bu ñu ko bëgg a teg parce que du lu muy du lu bees ci moom am na lu mu ci xam euh, mbir nag boo toogee ngay gën a xam lépp mais li gën a am solo xam na ko parce que ku mu nekk ministre des finance nekk ministre des affaires étrangères nekk directeur des impôts et domaines jóge fa nekk premier ministre boo nekkee président doo nekk ci doo nekk CI. malgré tout toog na am ku taxaw. président boo yeggee wax la Amadou Ba. waaw daf ko xamul day am ku ñëpp ñëpp xam ku ñëpp xam am na ñu xamul nit ñi xam nga kilifa kilifa googu dafa wax ak xër te ku ku déglu li mu wax moom mooy ànd na ak Amadou mais ñàkk a xamee ni nag taxul nga bañ a ànd ak moom moom mu ngi yóbbante ne ko lii dinañ ko jàppale waaye nanga wax Amadou dafa xàmmewul amadu amadu nag ñëpp mënuñ tëb rek xam ko moo tax mu ngi wër réew mi ànd ak président de la république di profité ci li nga xamante ne mooy tournée économique yi mais dina def tournée boppam muy tournée politique ba ñi ko war a xam gën ko xam. une boo xamante ni ñu bëri dañoo jàpp ni tournée politique la gën a nuru ndax fu ñu dem. non euh, non politique a ciy mujj. ñu bëri dañ ciy wax la parce que tournée qui permet d'évaluer au moment ñu koy tere opposition bi non opposition bi mënut a def tournée économique. no defuñu tournée économique. non attends non bul boole bul boole lu bokkul tournée économique li ñuy li président di def li président di def tournée lu président def tournée économique la du ñàkk nag waxu politique feeñ ci mais tournée économique moo ñu tax a jóg boo xam ne dañuy évaluer les politiques publiques ci niveau des territoires euh, projeté wu loolu ku nekk gis na ko ku nekk xam na ko waaw mun na am. mën na am parce que euh, bu ñu paree tournée économique bi balaa ñuy dem war nañoo mun a waxtaan ak responsable yi loolu dara nekku ci mais nag opposition bu bëggee def tournée ki ko war a def dafa war a déclarer li mu war a def su ko defee ñu assurer sa sécurité c'est simple mais on ne peut pas être dans un pays ku nekk jëf sa cortège rek di dem c'est les autorités yi nga xam ne ñooy gérer la sécurité di gérer les collectivités territoriales les régions les départements les arrondissements nekkuñu au ça c'est pas possible. ñu ngi doon xaar Matar Ba nga poser sa candidature <laughs> ci waaw mais mais mais président mu xam nga nag damay sant bu baax ñi muy jàppoon ne loolu laa war a def parce que yéene la waaye nag. nit ci logique boobu la nga nekkoon non mosuma nekk ci logique boobu. parce que jàppoon nañu sax loolu moo war a ñàkk xam nga man ñàkk maa xam. poste poste ministre ministère des sports. ah non quand xam nga ne nit booy jàpp ne lii moo tax da koy tegal lu concret lu factuel wane ne def na ko luy niru loolu man lépp lu ma mës a def pour ndamu président Macky la fi ma jaar moom moo tax tu sais le président Macky Sall a fait de moi l'homme des grandes premières Marena je suis le premier Sénégalais bu passer service publiquement avec un président élu soo ko xamee feneen wax ma tur bi yana Je suis le premier Sénégalais à avoir fait, à la tête du ministère des Sports, 8 ans, 3 mois. Bien évidemment, qui parle de cette longévité parlera effectivement des Jeux Olympiques, une première, de la Coupe d'Afrique, une première. Mais le président a fait de moi aussi le premier Sénégalais à avoir dirigé une organisation internationale composée de 192 pays. Je parle de la COP9. mais yemul foofu président defal na ma lu ëpp loolu li mu ma defal mooy je suis le premier ministre en exercice boo xamante ne dañ ko élevé aux ordres nationaux du Sénégal lii ma takk nii insigne commandeur de l'ordre national du Lion la seen une haute distinction et je suis en exercice il a fallu ko mu jël de mesures ex exceptionnelles pour pouvoir le faire ku la defal loolu lu mu wax nga wax lu mu waxul waxu ko deuxièmement da loolu nag dafa fekk si ma am ngor am dignité gëm président Macky Sall ànd ak moom te tant mu ngi fii li mu wax lay def képp ku ma xam-xam na ne ci loolu lay dox. mosoo am am jamais non mais xam nga nag nit aussi je peux pas être avec le président Macky Sall di am ay ambition moi je veux li may liggéey li may ñaan toujours ak li may liggéey toujours mooy mu am ndam ba nga xamante sénégalais yi. ni ñu ko bëggee day gën di yokku mais pas autre ñi nga xamante ne nag seen xol ak seen xel jàpp nañ ne niñ mel noonu la ñëpp mel ñoom mën nañ laa dëkkal foo dëkkul parce que gis nañ cette popularité jël nañ ko bi tous les Sénégalais son sorti j'ai fait le tour avec le trophée il y avait une mobilisation exceptionnelle ñi nga xam ne jubuñu au lieu ñu gis ci ne président moo ma yónni pour que lii nga xam ne jël nañ ko ñu jox ko paysan yi jox ko taalibe yi jox ko ñëpp parce que coupe bi Sénégal yëpp ñoo ko gagné au lieu ñu gis ci loolu ne kii ci ndigal lay dem ñu gis ci ne kii. day wuti nit ah mais parce que niñ mel lañ ma bëgg a dëkkal heureusement moi je suis pas comme ça je le faisais sur ordre du président de la République qui est mon grand frère et qui me connaît c'est pourquoi je l'ai rappelé lors de sa venue à Fatick dans un discours je lui effectivement tout ce que ñu jaar yëpp. te àdduna mënu koo neexee président Macky Sall mënu maa def lu ma métti président Macky Sall tànk mu ngi fi li mu bëgg lay def moom laa àndal su ma amee lu ma koy wax nag dinaa ko wax kenn du ko fekkee waaye lu mu bëgg ci loolu laa nekk. mosoo leen toog di waxtaan mu mbirum élection présidentielle ci sa candidature ndax am mais non non non non pourquoi. moi je suis son chef de cabinet quand je suis avec lui je suis quand il se prononce je sais ce qu'il veut. le président Macky Sall c'est un homme de dimension boo xam mu noo ko xalaat du ko xam ne da ngay ak moom di wax ay naq sax nag man jàpp naa ne ku ma yeewoon sax et réew mi fi mu toll nii gars yi nag nañu nekk nit. réew mi fi mu toll non déglul rek ma la dama lay wax loo xam ne ki koo dindi kenn du ko dindi dama réew mi fi toll nii sénégalais yi bu ñu xamoon président Macky Sall coono bi mu am pour que Sénégal mel ni mu mel. jafe-jafe yi problème de sécurité flambée des des prix ah subvention yi war a jëm électricité coono bu ci ne normalement su fekkoon ne nit ñi loolu laa jàpp waruñu woon a am ay deux cent soixante et un candidats parce que mbir boo ko yenu da nga koy càmbar ba xam nu mu toll ak nu mu diise sa micro bi boo ma ko bëggoon jox ma bañ parce que xaw ma li nga ciy def yow professionnel nga ci. donc du ma ñëw rek raas ko dem gars yi nag dañ foog ne lii bu bouteille ndox la boo xam da ngay ñëw gàddu dem loolu rafetul pour réew mi. y' a pas de pays au monde bu ñu am deux cent soixante et un candidats amul. wax ma benn pays monsieur le ministre tamit mënuñu jàpp ni président Macky Sall moom mooy koo xamante ni moom rek mën a jiite. j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça si yow yaa mën a jiite réew mi bu amee ambition mais jàpp ni. xam nga dafa waxtaan wala mu attanuñu que c'est soo may poser question ku déggul daanu ci loolu day foog ne li ngay wax laa wax te man li may wax ak yow li ngay wax li may wax mooy dans un pays où tout le monde est sérieux on ne peut pas avoir autant de candidatures yu fas yéene jiite réew mi réew boo ko xamee waroon nañu am dix candidats quinze candidats c'est normal mais deux cent soixante et un candidats ça doit te frustrer yow en tant que journaliste. dañoo am ambition rek non c'est pas une question d'ambition ce n'est pas une question mais ambition ku ne am na ko mais des ambitions démesurées ndof lay andi. Ah waaw. ambition bu ëpp dof rek lay indi. président de la république yaa ko wuutu fële ca Fatick yaa nga koy wax sànq euh, nga nekk fa maire boobu ba léegi mais mu mel ni biir Fatick responsable yi fa nekk sa diggante euh, responsable yi. samay xarit lanu ma nangu leen nag xarit nag tekkiwul ku ne am lu mu bëgg. da ngay xam ne nag président Macky Sall Fatick la dëkk. non non non dama day moom moom laa bëgg ñu taxaw ci dama la ne. spécificité Fatick. mooy président Macky Sall fa la dëkk te responsable yi ku ci ne daa am yow relation personnelle su ko defee ku ne nag am say ambition personnelle. yow ban responsable relation yu baax samay xarit la ñu ah. amul kenn koo xamante ne sama noon la mun nañ bokk ambition nag laalante ci politique mais bu jeexee jaan. sa diggante ak Cheikh suñu mag la suñu mag la des fois nag on n'a pas les mêmes lu bëri nag ñu ngi koy nettali suñu diggante te nekkul suñu diggante animosité boobu en tout cas en ce qui me concerne awma ak moom animosité boo xoolee sax ci élection yi passé législative yi bi ñu bëggee la am la comité électoral départemental man ma proposer Cheikh Kanté pour mu nekk ko c'était à la mairie donc koo amal yenn bis bi wala animosité doo ko def j'avoue que nag bokkuñ li ñuy def des fois mu def loo xamante ni du ma ci nangu peut-être man des fois mu def loo xam nangu ci mais on ne peut pas avoir d'animosité bokkuñu génération bokkuñu sax peut-être li ñu wut bon xarit nag kenn du ko forcer kenn peut-être am na ay xarit mais man mag laa ko jàppe c'est fini du ñu dajal lu dul réunion politique wala président Macky Sall ñëw ko donc yow on a aucun souci. malaise bi nekk suñu diggante. waaye mais. ndax du xam xam nga déggoo moom ci xamante ne mooy. non mënul xajamal dara bu ko doon xajamal 2012 ba tey mu xajam. certitude amul Fatick. mais certitude certitude am na. xam nga élection yi ñu jëm. je te dis aujourd'hui malaise bi am seen digg seen biir coalition. non ça n'a rien à ah, voir ah, ah, je te xam nga le président Macky bi mu yegsee Fatick son discours est révélateur nee leen Fatick est une terre de refus. c'est une terre de loyauté et de dignité laalante day am waaye bu fulla jotee ñëpp def li ñu war a def le président Macky Sall xam na Cheikh André mii ngeen di wax nii bu élection jotee day liggéey pour Macky Sall gagné ma liggéey pour Macky Sall gagné élection yi dem day liggéey pour amadu Ba gagné ma liggéey pour amadu Ba gagné ak ñeneen ñi ñeneen responsable yi fi nekk dans le département daal dans la région Fatick. bu fekkoon ne ñun ñu ñu amee certitude la ñëpp amee certitude y' a pas de souci ku nekk na gagné fi nga dëkk. avec trente mille parrains yi ngeen collecté ci parrainage yi. non le parrainage chose. non tuuti na ci li nga xamante ne moom lañ doon xaar. mais ce n' est pas que xamante ne non yokku na yokk na responsable yi fa bëri non yokku na bi président Macky Sall ñëwee ba dem. parce que loolu li ko andi woon rëq-rëq la ci approche xam nga bu la joxee li nga xamante mooy fiche de parrainage. li gën mooy nga woo ñëpp ne fii fiche yaa ngi nii ku nekk jël dem ci sa gox xam nga les maires lu leen nit bañ bañ xam ne ñoo yor kàddu yi parce que dañ dañoo xëccoo ñu fal leen kenn mënu leen a multiplier par zéro dugg ci commune yooyu def fa lu sotti mënul nekk donc loolu ça n'a rien à avec la réalité du terrain la réalité du terrain mooy lang nga fa gis bi président Macky Sall ñooy un monde fou enthousiaste fidèle au président Macky Sall fidèle à son choix ak lu mu mënti def loolu la ñuy def loolu boo ko jàppee rek jàpp li nga xamante mooy dëgg li ci des yëpp nag mënta ñàkk en politique parce que Cheikh mi ngay wax ni en 2008 2009 bi président dellu see Fatick gedd lim cër yi amoon PDS soxla li nga xamante mooy mairie Fatick bi bu gestuwaan daf may gis Cheikh dirigeait la liste du PDS. la guerre des bëggoon nekk. maire comme Macky Sall Macky ko. d'accord kon tey nag bu ñu àndee di liggéey eh, ku nekk mun nga am sa position mais ñun ñëpp ñoo dëkk Fatick te ñu ay noon encore une fois. amul tension. non nekkuñu noon daa wax. politique day am tension. mais on n'est pas des ennemis on ne travaille pas pour xeex suñu biir. on peut ah ku nekk mun na yor sa fulla ku nekk mun na yor sa approche mais bu fayda jotee ñu war a dajale dañu dajale su ko defee ñu am ndam. la guerre des chiffres ci parrainage bi Benno Bokk Yaakaar ñu jàpp ni ce sont des chiffres exagérés yu seen waa coalition di avancer trois millions de parrains ça veut dire que Amadou Ba est plus populaire que le président Macky Sall. ça c'est la lecture de Mimi Touré hein c'est sa lecture et vous reprenez ça. xam nga xam nga nit ñuy dajale ay yéen la bokkoon non dirigé parrainage non nekkoon ci yéen waaw waaw dirigé lu bëri man man je l'ai reçu bu ko waxee tamit mun na je l'ai reçu non mun nga ko gëm moo tax ma ne la ça ah, c'est la lecture de de de de madame Mimi euh, man à la place des autres je me serais focalisé sur mon parrainage et aller au conseil constitutionnel pour valider effectivement la candidature de Amadou Ba je na ferai pas une communication aussi grandiose man bu fekkoon ne man maa yor parrainage bi bu ma amoon cent mille cent millions de parrain duma ci communiquer. donc ñoom approche bi ñu non waxuma ne baaxul man la àndoo ci man dama ne beneen gis-gis laa gis ci parrainage. ça ñàkk ànd c'est plus fort que li may wax dama ne xam nga boo àndul ci dara da nga koy rejeter jeune ne rejette pas j'ai que man bu fekkoon ne man maa ko yore. jàpp naa ne dinaa def parrainage parce que parrainage dalay permet nga permettre nga tâter le pouls nga xam effectivement les zones bi nga xamante ne am nga doole fi nga war a liggéey loolu danga koy jàngat te politique dafa am secret secret bi moo lay tax nga bett nit ñi boo bettee nit ñi mën leen kon man duma ci dugg ci lu mel noonu di ko di ko yaatal yaatal bu rëy boobu danaa xam li ma am bu paasee nag mën naa ci dugg mais moment bi avant ñu dem conseil constitutionnel surtout que sax la coalition Benno Bokk Yaakaar a plusieurs options il y a le parrainage citoyen il y a le parrainage des maires il le parrainage des députés tout ça on est éligible donc euh, c'est pas un grand événement. buy tax de ne pas le champ libre à Pastef. mais en politique kenn du bàyyi le champ libre à quelqu'un qui veut prendre ta place ban dominer comment comment dominer comment dominer parce qu'ils sont en train de parrainer waaw mais ñoom ñoom la ñu war a gis xam nga nit ki nag xam nga xam nga barigo bu fees du def bruit bi deful bi feesul mooy def bruit moom la ñuy xam ne fii la jaar mais barigo bu fees kay tekk rek lay def mais ñiy def bruit yi ñu bëgg ñu gis leen kay ñooñu ñoo toll foofu seen tolluwaay la xanaa ah seen barigo feesul de parce que barigo bu fees mun naa bëtt tuuru ah. présidentielle sans Ousmane mais man je man du ma tudd Ousmane Sonko présidentielle sans un Sénégalais qui ne rempli par le critères pour être candidat san ne doit pas être un événement. nga yaakaar ne man xam nga fi ma lay tontoo dafa sori yow da nga wax ci Ousmane Sonko je préfère pas parler de lui. son dossier est en justice. Et la justice est en train de faire son travail. Je préfère ne pas parler de lui, mais aller plus loin que ça. J'ai dit, quel que soit le Sénégalais, s'il ne doit pas être candidat, ça ne doit pas être un doit, cela veut dire que amna lu manqué lu tax mu wara nek candidat bu ko nekul ta nek événement parce que le Sénégal est beaucoup plus fort que tout, nous tous. Nous, ñëpp ay politiciens lañ, on passe, le Sénégal reste. Il pas de Sénégalais plus fort que les Sénégalais. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Sénégalais plus fort et plus important que ce pays. Donc, il faut pas qu'on change role change les rôles. Hein. Nous, nous sommes réunis, mais réunis, nous ak képp ko loo bari bari doole loo nekk nekk président da ngay liggéey pour réew mi ki ngay liggéeyal nag mën a ko ëpp doole. le rapport Cour des comptes. oui oui c' un dossier boo xamante ni bëri na coow. Mhm. monsieur le ministre gannaaw bi rapport bi génnee. ñu ñu tudd la ci rapport bi mais boobu li kan moo ma tudd ci rapport bi. ñu ñu gis ni euh, ki nga xamante ni moo doon sa DAGE. ñu gis ni rapport bi dafa. mais mais no no non attendez ce qui s'est passé c'est que le DAGE n'a rien dit d'extraordinaire un DAGE qui travaille et qui di que je travaille sur instruction du du ministre mais le daaj ne peut pas travailler seul il travaille sur instruction mais quand on te des instructions danga koy appliquer en se basant sur les règles de gestion loolu la xam nga le DAGE le premier rapport du premier euh, rapport Cour des comptes booy xool ministère yi ñu ci jàpp ne dañoo jalgati ministère des sports bokk ci dañu jàpp rek ne am na joxe na xaalis boo xamante ne dafa waroon jaar ci compte dem ci compte mais waxuñu ne dafa jël xaalis bi lekk ko. d'ailleurs le ministre actuel le ministre actuel à l'Assemblée nationale dégg ngeen ko mu ne au niveau de son ministère ña fa nekk yëpp amul kenn koo xamante taxe na ci lu mel noonu parce que nit ñi duñu liir bu baax li nga xamante ne am na kuy gérer ay milliards nag mën na am ñu ne la joxe nga ko main gauche da nga ko waroon joxe main droite suñ ko joxee loolu daf la war a jàngal pour suba boo koy def nga changé ko mais waxuñu benn yoon ne daal di la fa jël xaalis bi denc ko wala muy dugal ko foo xam ne waru ko fa dugal c'est ce qu'il faut retenir maintenant les rapports des cours des comptes inspection générale d'État ñooñu ñëpp di ñëw di xool xooluñu pour sanctionner nit ñi dañuy xool aussi bu ñu gisee lu ñu war gis ñu jàngal nit ñi pour que nga am loo ci jàngal c'est formateur ces genre de rapport la plus grande équation mooy ñu bëri dañ doon poser la question monsieur le ministre Matar Ba lan moo tax woowuñu ko ñu déglu ko mais c'est parce que dañ ma war a war a woowoo la c'est très simple. réew mi bu ñu waree woon nit. kuréel gi la war a woo dana la woo. li ñu gën a jàpp mooy bokk na ci li tax président wàccee que taf ko ci wetam ndax ki nag ci wetu président kenn da ko woo. mais ça c'est pas vrai ça c'est très dangereux que nit ñi di xalaate noonu le président de la république ne pas au-dessus des lois du Sénégal waxatuma laa ko ne ci wetam président Macky Sall li muy doxal day fexe ba du jàdd yoon parce que yoon moo ëpp ñëpp doole. Donc yow y rapport Cour des comptes Mais c'est parce que je ne suis pas concerné. Et puis d'ailleurs, ces rapports-là, vous que moi, en tant que maire, l'inspection générale d'État a fouillé la gestion de la mairie de Fatigue en 2015 et avec l'affaire de Khalifa Sall. La Cour des comptes est revenue à Fatigue. Je suis habitué à ces genres d'inspection parce que daf lay jàngal du loo xamante dañuy ñëw pour gas kàmb dugal la ci gisuñu lu tax ñu war a woote ma woo Matar Ba suñ ma waroon dinañ ma woo et j'assumerai ce que Je pense que le Sénégal me l'a bien rendu. J'ai été ministre des Sports, des Sénégalais, bu ma gis li muy njëkk xalaat mooy Coupe d'Afrique loolu laay sant yàlla gestion bu amee rëq-rëq danga war a defaru pour rëq-rëq boobu dootoo ko def loolu mooy njëkk liñ lay njëkk laaj su amee leneen lu ñu la war a teg ñu teg la ko loolu mooy dëgg le DAGE il a été là il a fait toutes les compétition def na li mu mën on a gagné ensemble on a fait ensemble mais il a toujours assumé se responsabilités d'ailleurs avant lii lépp quand il est sorti à la télé après le rapport il a assumé ses responsabilités loolu la ñu xaar ci sénégalais yi soo nekkee ci role dangay ngay li nga xamante ne danga nga ko am ndam nga bokk kook nit ñi li nga amee ne rëq-rëq la nga gàddul ko sa bopp loolu mooy dëgg loolu la nit ñi di gérer Sénégal mais moom mënu ko gàddul boppam parce que ñun ñëpp ñoo ànd di liggéey te liñ ci jublu woon mooy ndam li ñu yàlla may amul benn fédération buy taxaw ne ko daa joxal ma sama xaalis et cetera et cetera donc ces choses là je pense que le ministre des finances ci passage du ministère des sports à l'assemblée expliqué na ko ba mu leer ci bopp nit ñi le ministre actuel l'a bien expliqué j'encourage le DAGE à poursuivre et, et puis que les, tout le monde le ministère des sports continue di am ndam pour le bonheur de sénégalais. ñu dellu ci Fatick ci sa mairie bi euh, tey euh, gannaaw bi ñu fa nekkee ba léegi boo ñu doon defal li nga xamante ni mooy bilan au niveau de la mairie de Fatick. non bilan tel na parce que j'entame un autre mandat. ce que je peux dire mooy. actuellement ce que beaucoup de choses ont été faites à Fatick mais les ambitions des Fatickois. aussi est très grande. Les ambitions sont très grandes. Cela veut dire quoi Sénégalais ak doomu aadama mooy dundee noonu soo amee lii rek soxla nga leneen Fatick am na temps amul dara c'est avec le président Macky Sall depuis 2005 avec bi muy nekk premier ministre lañ commencé di bâtir le Fatick du futur. ba tey ji y a beaucoup de projets yu ñëw Fatick école gendarmerie autoroute bi jaar euh, université ndox mu neex Fatick et cetera et cetera les emplois le boulevard les investissements tout ça Fatick est devenu effectivement une grande région moo tax muy développé wu et la preuve que je vous donne mooy dëkk boo gis banques yi di wut fu ñu nekk di implanté wu am na avenir te tey am ñu ay demande banque yoo xam ne xamaguñ sax fu ñu leen def parce que Fatick n'a plus de foncier nit ñi tabax nañ ko ba amatul sax suuf moo tax ñuy demander la cohérence territoriale moo taxit ñu am entente ak les communes yi nga xam moo ñu wër pour que doomu Fatick yi trouver foo xamante war nañ fa mën a tabax. donc perspective yi ñu am yëpp mooy la ñu doon rêvé am na lu ci am parce que ñun en 2012 dañ doon rêvé nit juddoo Fatick dem maternelle dem élémentaire dem moyen dem lycée. dem université Fatick formé wu Fatick te loolu yëpp yàlla dogal na am na université am na lycée professionnel am na li ñu bëgg nag léegi moom mooy am zone boo xamante dañuy capter installer foofu ay partenaires ay investisseurs ñoo par def ay usines ak lu ne pour xale yi mën di mën am liggéey parce que dëkk li tax muy dox mooy képp ku fa dem ba am yenn âge yi jàng ba pare nga mun a tabax dëkk ba nga nekk liggéey fa loolooy tax dëkk bi dem kanam. mais bu fekkee ne fa ngay amee doole feneen ngay dem fa nga dëkk boo moytul foofu ngay tabax donc loolu la ñu ñaan te Fatick Carrefour lay doon avec le port de Foundiougne avec le pont de Foundiougne mooy yoon woowu dina tax Fatick ubbeeku ba nekk Carrefour jàpp nañ ne fii ñu jëm Fatick tànk kanam la am mais amul tànk gannaaw. ñu di la sant maa ngi lay sant bu baax di la di la gërëm ci waxtaan wi waxtaan wi am na solo. Euh, di jàpp rek ne di ñaan sénégalais yi ñuy seetaan yàlla na yàlla def ñu jële njëriñ ci waxtaan wi nga xamante ne moom la ñu seq parce que liñ ci jublu mooy ñi ñuy dégg jële ci jële ci njëriñ di ñaan nag sénégalais yi ñu xam ne ñun ñëpp réew mi ñu ëpp doole te fi ñu jëm élection présidentielle toujours élection yu yu yu am solo la nañ ci dem ci dal dem ci ci bëgg Sénégal dem ci ci gëm yàlla dem ci ci wormante warumaalante ku yàlla jox ndam ñu xam ne yow lay jox ndam te jàpp naa ne ñun la koy jox parce que loolu lañuy liggéey pour am ndam leneen li mooy bu ñu élection ba bët set ku nekk na dem liggéey journalistes yi def seen liggéey ñu war a dem def seen liggéey parce que loolu moom mooy grandir ce pays là nañu fexe ba joxante loxo ba ñàkk suñu réew ba nga xamante ne saytaane du fi dugg jafe-jafe du fi am parce loolu moom ngeen di xeex guddi di ko xeex bëccëg ñun ñu koy xeex guddi di ko xeex bëccëg euh, en tout cas je fais confiance aux Sénégalais vu depuis 1960 tout ce qui s'est passé quelles que soient les difficultés les Sénégalais dañ koy surpasser pour garder euh, effectivement euh, la paix et la stabilité de ce pays. jërëjëf mu doonoon monsieur le ministre des sports ancien ministre de sports chef de cabinet du président de la République. maire de Fatick mais aussi donc responsable politique foofu ci Fatick mbégte kontante bu baax nga dalal ñu fii ci sa kër euh, mais aussi ñu am mbégte kontante di sëkk waxtaan ak yow ñu yaakaar ni dina amal sénégalais yi njëriñ di la gërëm di la sant bu baax di leen gërëm di leen sant bu baax yen ñi safoo dañu seetaan saa su ne ci leeral TV leeral point net ak leeral FM jërë ngeen jëf ba beneen yoon ci seen euh, beneen numéro entretien exclusif